jaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun dama farataal ci yéen koor ni ma ko farataal ñeel njiit woon lépp nag eh, la ko tax a jóg la la ma ci la ma ci jublu mooy lañ cay jële mooy ngir ngeen ragal yàlla laallakum tattaquun taqwa kon mooy mooy lañ cay sàkku jullit bi kon sañ a yaakaar ci yàlla subhanahu wa mu jeb mu jéggal ko ci la jiitoon lépp cay bàkkaaram waaye di ca mébétit ak gore ci sawara ak tàbbi aljanna te suma soxna daal diggoon na ko yent bi saasam ak ak ñi ci moom ne man saama ramadaana imaanan wa ihtisaaba gufira lahu ma taqaddama min danbi rawaahu nasaa'i képp ku woor weeru koor te lépp mu teg ko ci gëm yàlla ak sàkku tiyaaba yàlla jegal ko la jiitu woon lépp ci ay bakkaaram nasaa iyu moo nettali xadis boobu ñëw na ci xadis si it suñ borom wax ne jëf yépp jëf ju mën a doon ju jaam bi jëf jaam bi moom moom jëf ji ba mu des koor koor moom man yàlla maa ko maa ko fee sama bopp kullu amalin aadama lahu illa sawm fa innahu liwaana jisi bi dëgg-dëgg yàlla moom jëf yëpp jëf yëpp yàllaa ko moom kon suy tànni ko nag jàggoo ko ne maa ko moom donte moom moom yëpp kon askan gi mu askani boppam dafa ko dafa wane rek kon daye moom ak fu ko eh, ak ak ak ko jox ak ñor ko ñor eh, ak eh, goo xam ne màgg na ko buxaari ak muslim ku ci nag solo na xadis boobu ba ko ñaareel mooy ixlaas sellal dafa bokk ci jikkooy aji woor ak gépp jaam yàlla gu sun gu nit di def aji woor faw dafay màndarga woo dafay jikkoo jikkooy sellal ngir yàlla asa wa jàll te mooy lépp mu jëf ne yàlla dong tax man a koor gi mu yor na jëm yàlla dong tax lépp lu jëf ji àndut ak sellal daanaka jëf ga ak bàyyi dañuy xaw a yem ndax li yonent bi sallallahu waxoon ne rubba qaaimin xaduhu min qiyaamihi alsahr wa rubba saaimin xaduhu min siyaamihi aljuu wal atash rawaahu ahmad baraana aji taxaw di naafila guddi te jëliwut ca taxawaay yi lu may ñàkk nelaw dong baraana kuy woorit te dara toppiwu ko ca koor ga lu may xiif ak mar dong yàlla nañ ca la musal moo tax Sëñ doon wax ne koor kon yéemu rek ci bàyyi lekk bàyyi naan waaye koor mooy sa cër yépp woor summa siyaamu fantabihi lam yanxasir fii adamil akli faqat laa taxtari kon loolu dong du mooy koor isu ba saa yu maal jamaa lay siloo fii sol ma jamaa kon la mooy lu mooy dëpp ko xadis boobu waaye sellal nag dafa nekk ponk cosaan ci jëfe aji woor ndax lépp lu sellal amut lu ixlaas amul jooju jëf de su ko nangu ba ko ñetteel mooy as sabru muñ ci jikkoy aji woor la bokk kon koor dafay tàmmal bakkan bakkan doomu aadama daf koy tàmbal ak muñ muñ xiif muñ aw mar muñ ay bànneex ngir ci lay mën a ñoŋale bakkan bi ba man ko néewal doole yi nga xam ñoo koy songu di ay noon yoo xam ne ñoo koy wëlbati di ko jëmale ci loo xam ne lu yàlla gërëmut la waaye ci lay man a note ci la koy mën a note dëgg dëgg dëgg ba mën ko jàll fu ko bëgg a jàlloo ci jëfandigal bàyyi bàyyi jëfandigal ak bàyyi tere moo tax yonent bi saa doon na sum sum shahra sabri wa thalaasat ayaamin yi kulli shahri yudhhibna wahra sadr bañ na ko ba weeru muñ la ko tuddee foofu sax na nga muñ nanga nanga woor weeru muñ wi weeru muñ wi ak ñetti fan ci weeru nekk loolu dana dindi ñëggi-ñëggi xol dana dindi jax-jaxay xol biraas ak tabaraan yi ku ci ne nettali na xadisa boobu kon muñ mooy ngànnaayal aji woor tayit ci lay mën a nag eh, dégge wala jële wax ji sunu Boroom waxoon ne innamaa yuwaffas saabiruuna ajrahum bi xayri xisaab ñii woor day seenu seen pay ga leen yàlla fayal fay dara du ca manki pay gu ma sëkk lay doon eh, pay goo xam du ànd ak benn benn benn benn jafe-jafe du ànd ak benn rek la ëllëg lañu ko jóor noonu rek ba ko ñeenteel mooy at tadhiya mooy nangoo def ay sacrifice mooy toggoo ay metit kon faawu aji woor ji nangoo sacrifier lekkam ak naanam ak yéeg-yéegi bakkanam rafet rafet ak neex-neexi bakkanam noonu la ko def ci àllam nangoo sacrifier alalam bu ñuy digle sadaqatul fitre askay murum koor wala muy asadaqa tatawuiya muy sarax yi nga xam ne ki mooy coobar yi di ko defal boppam lépp ngir sàkkub yool ci yàlla azza wa jalla te mbir moom ay ahadis yu bare bare bare root na ci yoo xam ne yëpp wér bokk na ca wax ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne as-siyaamu wal quraanu yashfa'aani lil abdi yawmal qiyaama ak koor ñoom ñaar ñëpp dañuy ràmm ab jaam ëllëg bis penc yaqulu siyaamu ay rabbi mana'tu mana'tuhu ta'ama wa shahwata fa shaffi'ni fii wa yaqulu qur'an ay rabbi manaatuhu ma fa shafi'ni fi qaal fa yashfa'an rawahu limaam ahmad wa tabrani alxuraan day wax ne yow sun boom eh, day wax ne yow sun boom kii day maa ko teewoon a kon nag rikki waay ma ci moom alxuraan ne ko kii sun borom kii de maa ko teewoon a nelaw guddi ngir di ma taxawee di ma naafi la kon nag rikki tin ma ci moom sun boom jox leen ndigal ñu ràmm la ñoom ñaar kon koor nag faw nit ki nangu ci toggoo ay sacrifice ci ay mbir yu yu yu yu bakkan bëgg ngir jaamoo ko yàlla subhaanahu wa taala euh, sacrifice sa bakkan nag ak sa alal ak sa lekk sa naan ak say bànneex dafa bokk ci jikko aji woor waaye bokk ci jikkoy kiy kiy jihaat ci yoonu yàlla ndax mooy cosaanul ngañaay ci sa bakkan nit ki li fekk mëntaam nga ñaayal bakkanam mëntaam nga ñaayal ay noonam maanaam noonu lislaam yi faaw nga faaw nga am victoire ci say bakkan door mën a victoire ci say ci noonu lislaam yi kon nag am wàccuwaay bu màgg a màgg bu kawe eh, fa yàlla subhanahu wa taala ndax dafay jaadu ci jullit bi mu xam ko eh, ngir màggu darajaam taxoon na Sëriñ Tuubaa mii sunu yaakaar daa ko waajal lool teru teem ci fànn yu bari am na xasigu xasida gu gàtt gum ci taarif taarifoon ko ca Gabon eh, ci terutel weeru koor doon ko ko gàttandoo ak di ko ca dalal di ko ca tatagal yaa xayra dayfin ata madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi muy xasida gu gàtt waaye xam leen da ca biir darajay weeru koor xamle na da ca ay njariñam xam na da ca it naka la ci jullit bi war a taxawe ak nan la ko war a jàppee ba mën a jot ci ngëneel yi nga xam ne moo dencu ci biir weeru koor wi mu tënk ci njalbeen gi lim namm lim ci namm ndax feeñal na ne mboolem xeeti ne moo dencu ci biir weeru koor wi mu tënk ci njalbeen gi lim namm lim ci namm ndax feeñal na ne mboolem xeeti gan yi am yépp gan gi mooy gi ci gën moo gën ci mboolem xeetu gan gu mën a am yaa xayra dayfin ki yaa gën ci mboolem mboolem gan yi dafa tegtal kon borom dara yi ci màgg la wane nag gan la wax ne buy ñëw dafay indaale sëri ca mbégte dafa indaal sëri ci xéewal dafa indaal sëri ci ndollan jëme ko ci mbalim jullit ñëpp nag tax nag mu dalal ko tatagal ko yaatal ko ne ko ñëw nga sa kër fekk nga fi say bokk fuñ la namme fuñ la soxlaa fuñ la fuñ fuñ la fuñ la yittewoo la bëggee wax ca li ci sës ne feeñal ca daraje weer wi wane ne koy berndeel mooy topp yàlla bernde topp yàlla la zilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman bi xiira taati wa sadadi wane nit gan la gu màgg fa yàlla subhanahu wa taala màggam googi nag ba ko xam topp yàlla bernde topp yàlla la zilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman bi xiira taati wa sadadi wane nit gan la gu màgg fa yàlla subhanahu wa màggam googi nag ba ko waroom xam-xam yi xamee kilifa yi xam ko ñu baax ñëpp xam ko dañoo maase màggal ko jox ko dayo bi ko yàlla jox subhanahu wa taala muazzaman inda rabbin sharika lahu wa inda ahli tuqa wal ilmi war rashadi màgg googi mu màgg nag may su ko xamee ci juróomi yëf ci tënk ba njëkk mooy wàcce gi ci sunu Boroom wàcce alquranul karim te alquran mooy làmp bi nga xam walla jant bi nga xam ne ci la jaam bi di niitoo ci jullit bi niitoo mën a xam li koy jariñ àdduna xam li koy jariñ àllaaxira su xamee li koy jariñ mooy tax mu topp ko xam la koy lor moo tax mu moytu ko ci lay xàmmee la baax ak la lëndëm eh, ci li baax ak li bon ci lay xàmmee li leer ak li lëndëm ci lay xàmmoo xàmmee li jub ak li dëng soo dee mu topp la baax bàyyi la bon topp la leer bàyyi la lëndëm topp la jub bàyyi la dëng shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnaasi bayyinatin minal hudaa wal furqaan ba ko ñaareel ci liñ mën a xamee màggaayu koor mooy ci la guddi lay gi laylatul xadr nekk di guddi gu màgg dara ja gu kawe gu am solo goo xam ne ci waru weeru koor rekk la ko suñu jagleel genn guddi goo xam ne ku ko jaamu yàlla te sell bu ko suñu nangoo dana toll ak junni weer yoo jaamu yàlla jaamu yàlla gu suñu boom nangu te junni weer ñu koy natt ci juróom ñetti fukki at ak ñett ak ñeenti weer loolu ñëpp amuñ tawféex yi dundul toll noonu waaye genn guddi képp nga mag ko am ca tiyaabe mel ni ko dund loolu jaamu ko sundoom nangu jaamu ko lépp new ñooyam sax waaye da ko ëpp la wax xayrun la wax laylatul xadri xayrun min alfi shahr kon dafa da ko ëpp dafa gën jun junni weeri yàlla guñ nangu euh, kon guddi goo xam nag dana wuutu la tol noonu ci aw yiw kon weer wam nekk day wone kon weer woowa weer la wu màgg wu am dayo wu tedd wu sell wu bari ngëneel moo la Sëñ Tuubaa naan yaa shahra rabbin karimin fii ka jaadalanaa bi laylatil xadri taatil fadlil war raxadi yow weeru koor wi weeru sunu borom bu tedd wi ci sa biir lanu sunu borom defal xéewaluk laylatul xadar guddi goo xam ne guddi xéewal la guddi ngëneel la talatul fadli war raxadi borom ngëneel la waaye borom xéewal la itam ba ko ñetteel ci liy tegtale ak màggaayam mooy wenn weer wi sunu borom yoonal farataal ñu woor ko ci diirub at mi donte weer yu màgg yeneen am na tabari lool it ci biir at mi muharram weer la wu màgg dul xijja weer la wu màgg dul xiada raja chaban am ci yoo xam ne dafa bokk ci al ashurul xurum weer yoo xam naka jekk dafa amoon war ma jiitu lislaam amoon màggaay am ci yoo xam ne sopp nañ ko woor lépp ku ko màng mbaa woor la ci ëpp waaye ànd ak loolu lépp nag cheikh ramadan képp la sunu farataal ci jaam bi mu woor ko diirub ci at mi yëpp ba ko ñenteel mooy am nag màggalal fa yàlla subhanahu wa taala ak warma ju rëy ba tax dee fi ci ful jëfi jaam bi jëf ju mën a doon moo xam jëfi topp la moo xam jëfi mooy la dañ koy ful ndax weer yooyu màgg moo toll noonu lu ci waaye jëf suñu bam ful ko naa weeru ko mu jëf la xam mooy loo ko indil mu fulal la su dee lu baax mu ful su dee leneen mu ful mooy loo ko indil mu fulal la moo tax ñu kon weeru promotion la wax ne weeru njëkkante la ci jëf-jëf ju baax doy na la ca tegtal rek ci ne ci war maam ne képp ki woor war amul benn ngantam mu dog ca ñaari weer a koy fay ñaari weer yu toftaloo yoon soo dogee te te te te te mëtu tàmbaliwaat loolu benn la ci benn la ci xeeti kafaare yi weer woo xam benn bisam ñaari weer koy fay ci yeneen weer dafa tete kon woo weer kon weer la wu màgg weer la wu tedd da ngay fay bis ba noppi door weer wala ñaari kon day war na kon woo weer wu màgg la wu tedd la bu bari ngëneel la kon ku weeru koor tàbbi ndax suñu bon ni mu amee ci jamono jamono yu tànn yu ñuy ful jëf noonu la amee ci barab yi barab yu tànn yu ñuy ful jëf da nga dégg ne masjidul xaraam soo fa jullee benn rakka muy jumaay màkka rakkaam mu nekk dafay toll fukki junni rakka yooyu julli feneen bu dee masjidu nabawi yi mu jàkka yontu saa suñ ci madina benn rakkaam di wecc junni rakka yooyu julli feneen soo fa jullee benn rakka mu wutu juróomi téeméer rakka yu julli feneen kon ëppale ga muy ëppale feneen ay ay ay darajay jaamu yàlla mooy màggaayu barab ba tax te tuubaa gii nag ca barab yooyu la ko suñu borom barab yi ñuy fule ay jëf da ca bokk si ama si Abdul Xaadir daana nettali wax dafa mas a fekk ko njaareem fekk koor di jege si ñu ngi ko siyaaree bay tàggu ngir tàggu ngir di ko tàggu ngir dellu ci la ko laaj fan nga bëgge woo fan nga bëgg a woore mu ne ko man de Tuuba laa bëggoon a woore mu ne ko sa baay bu baax de newoon na lu baax baaxee na fu ne waaye Tuuba la gën a sakkane lu baax baaxee na fu ne waaye Tuuba la gën a sakkane te sëñ bi xaar man lu sakkan dong lay wut mu ne bañu na ba kooru ngàtt nga sax du ko nangoo defee fenn fu dul Tuuba kon baral la bu ñu fulee jëf kon kon su weeru ko tàbbee fekk la fu mel ni Tuuba kon ñaari war ma daje na ci sa kaw kon ku ne war a fegu waaye yaa ca raw ku ne war a sàmm waaye yaa ca raw ndax subaa soo jëfee def na ko ful ñaari yoon def na ko ful ngir jamono ji nga ko defee muy koor dellu ko fulaat ngir barab bi nga ko defee kon lu mat a bàyyi xel la muy weer woo xam ne juróomeel ba nag te bi ci mujj ci ci leeral ci li tegtal màggaay bi mooy weeru koor weer la wu bari barke bari yërmande bari njëgalu suñu borom ba tax saa bu tàbbee dañuy tëj bunti sawara yépp ràpp tëj tijji bunti aljanna yépp afal jëng seytaane yi ba ñu mën a yàqal xeetu yonent bi sallallahu ngir nit ki mën a jot ci boppam mën a dëgmal boroomam ba màng mën a màng yërmande xéewal gi am ci weer wi ni ko Sëñ Tuubaa waxe wa safidan kulla shaytanin bima ma'ahu wa muthifan li dawil ihsaani bis safadi wax ci mujj xasida gi nag moom naka lay taxawe ci tàbbik weeru koor te day jaadu lépp ñu roy ko ci jànge ko ci moom itam sunu kem kàttan inni uhibbuka hubba daati ta talabi min maliki fiika isaadan bila awadi dama laa bëgg lool yow weer ko ni ñuy bëgg a jëmm sa jëmm laa bëgg tey sàkk ci sama borom mu defal ma ci sa biir ak texe gu àndut ak ndëngte mooy kon ak texe ak jub mu nuy jàngal ci loolu ne ab jullit suy tàbbi ci weeru koor war naa am pas-pas ak góor-góorlu suy génn ceeru génnaale ak taxe waaye génnaale ak njub pas na am pas yéene suy génn ci koor génnaale ak taxe waaye génnaale li ak njub texe nag mooy nit ki am yërmande yàlla ak njëggalam ak mucc ci sawara te yonente bi sallallahu alayhi newoon na awwaluhu rahma fa wasatuhu maxfira wa axiru itqu min naar ak njaal bennam mu fukki fan yu yëkk yi yërmande la fukki fan yi ci digg bi njéggal la fukki fan yu mujj ak gore la ci sawara kon ku tàbbi ci weeru koor te sàmmonteeg war ma ji defe ko ni mu ware amaana mu jële ci texe googe texe gi Sëñ Tuubaa di sàkku ci xasee suñu bon defal ko ci su dee ak njum nag li ëpp ci li gàllankoor nit ki ba dox diggam ak njub la ca ëpp ci bakkanam lay delloo bakkanam bi nga xam ne am maaratum bi suu te Sëñ Tuubaa nag bakkan amul benn jëng wala benn tënk bu ko mën a téye lu weesu xiifal ko saa bu jàmbi xiifalee boroomam ci koor mën naa dem ba ba ba nos ko war war ko jëmale ko fu ko sob ci topp ndigal ak bàyyi tare ca not gam koy not moo tax su ma mot la ay laallakum kon jaadu na kon wo dogg gu ma sëkk ci buy tàbbi ci koor mu yéene bu ci génn génnaale ak texe waaye génnaale ak njub lay jàpp na lool nag mooy mu jiital ak tuub ngir royu ko Sëriñ Tubaa ndax Sëriñ Tubaa nee moom waxtu nekk la muy dundale kooram mooy tuub daa tawbatin fii ka aydan maadiyan abadan bi dikri wa shukri wal quraani lil ahadi ñaan ma dem eh, borom tuub ci sa biir yow weeru koor la lépp donte de musa musa def lu ñuy tuub boole ko di tudd yàlla ak di ko sant ak di jàng alxuraan ngir jëm yàlla dong waaye mu génn ci mboolem luñ ko tere ak lépp luy bàkkaar doo ko ci jëf lañ ko digal nañ ko ko digale ni ko wax ci njëlbeen gën a woor koor nag am ay àtte ak i teggint te dafa jaadu nit ki ab julit lépp lu muy def mu xam lu cay attab lislaam Sëriñ Tuubaa newoon na wax naa leen ne leen yàlla xaraamal na ci mépp mu kallaf muy jëf jenn jëfi diine ndax mu njëkk lu ci attab lislaam loolu dafa xaram xultu waxat xarama rabbuna ala kulli mukallafin ala ma nuqila filan bi gayri ilmi hukmi sharci fiihi fada nasu dalilun xatci ko war nañoo xam lan mooy woor suñu laajoon lan mooy koor mën nga ko tënk ci ñetti baat ci lu gàtt wax ne koor mooy nga bàyyi bànneexi biir ak bànneexi pëy li ko daale ci fenk fajar ba ba jant bi so te yéene ci jàmm yàlla ci tënk loolooy koor bàyyi mboolem bànneex yi biir ak bànneex yi pay li dali fenk fajar ba soog jant te yéene cag jaamu yàlla ana kan war na mépp mu kallaf képp ko xam ne mat na mu kallaf te amum xel te jot ci woote bi lislaam def naa woote bi lislaam fi ne ñëpp ci jot waaye ku dundoon ba faatu te musta dégg mus musta yëg na am na yent bu wàcc bu ñuy wax sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam am na amul diine am na diine ju wàcc tudd lislaam xamu ko ci ba faatu kooku dara waru ko waaw loolu nag fi ne jamono weesu na loolu mooy léegi ñëpp xam nañ ne lislaam lu am la kon su ab jullit la man mu mukallaf te jot ci woote bi lislaam te benn ngant kooka la koor war ñu déggee ci loolu ne kon warul gone waaye teewul gone su wooree koor ga dana wér warul ab dof ku texale ko xelam te texale texale gam texale ko xelam mooy tegu ko boppam sabab luwu ko kooku koor waru ko te bu ci jooj jamono it koor ga du wér warul it koo xam ne jotul ci woote bi lislaam ba faatu ndax su Boroom moo ne wa maa kunna mu'addibiina hattaa nab'atha rasuula bala maa mbugal kenn day fekk man yabal sama ndaw ci moom bam xamal ko li mu bëgg li mu bañ ba noppi kon warul ci ki nga xam ne dafa day jigéen te gis baax jamono jam koy gis wala ki am doom li fekk la muy àndal seetagut eh, koor wóoru leen dafay xaraam sax ci ñoom te bu ñu wooree koor ga du wér waaye war nañoo fay nag gannaaw bu ñu laabee jël ni ci abi saidin xudur yi radiyallahu anhu mu ne yonente bi salaa sallam nee na alayta isa xaadatil maratu lam tusalli wa lam tasum mu taxoon ali mu ndax du ne jigéen su jisee baax du julli te du woor du julli te du ko fay du woor waaye da koy fay kon eh, ñu li ci topp mooy maasuraat yi mooy ngant yi nga xam ne comme gaar koor wàcc la ba ngay tàggu loola ba ci njëkk mooy almaradu shadid wéri digu tar goo xam ne tee na laa mën a woor kooku daf am na sañ-sañu dog ci su fekkee docteur bu bu jullit bu am xam-xam da koo xamal ne ko soo wooree dana la jural jafe-jafe sàngam mbaa dana dolli sa wér di mbaa dana tax nga yéex a su boobaa nag am na sañ-sañu dog suñu ba moo ne fa man kaana minkum mariidan aw ala safarin fa iddatu min ayyaamin uxar képp ci yéen koo xam ne am na eh, ak wéradi wala mu ne ci tukki na jàppale idda kooram googee ba yeneen fan kon ma tegtal ne kon ki wéradi kon wéradi goo xam kenn ko mën a wor am na sañ-sañu dog waaye saa su wéree nag da koy fay ba ko ñaareel mooy tukki dina ci tukki boo xam ne tukki bu dagan la mooy la ngay tukki la ngay doxi du ak mooy yàlla du ay caaxaan du am po te tukki bi mat masaafatul xasri mooy tukki bi nga sañe wàññee julli nga xam lu néew néew dana mat juróom ñaar fukki kilomètre ak ñaar suba am na sañ-sañu dog donte nag koor ga du ko lor donte su su waree du loru teewut am na sañ-sañu dog xam nga tukki bu gudd moom tukki moom ba xasi sore rek ñaare du ñàkk ab coona am ca moo xam coono ba néew mbaa mu bari mooy mooy la gën a not parce que fekkee coono boobu nag euh, day néew te bu waree du ko wàññi dara nag subaa koor gaa gën moo tax sunu Boroom wa la ko xayrun lakum su ngeen wooroon nag moo gën ci yéen waaye am teewut am nga sañ-sañu dog ak xadis bi soxna Aysa nettali wax ne Xamsatu bnu Amrin al aslami yi dafa nekkoon ko bari lu daa war masaan laaj yonent saas ne ko asuumu fi safar mu ne ko in shi'ta fa sum wa in fa aftir da ko laaj ne ndax su may tukki damay woor walla damay dog mu ne ko su la neexee nga woor su la neexee nga dog ba ko ñetteel mooy jigéen bu tollee ab diggante dagan na ci moom mu dog su fekkee ragal na lor ci jëmmam mbaa mu ragal lor ci lim àndal am na sañ-sañu sukkandiku ca loolu dog waaye su demee ba man ko day fay ba ko ñeenteel mooy nàmpal jigéen ji nàmpal te bu wooree du am soow mu doom ji nàmp te doom ji mën a gute lekk te amul ko ko nàmpalal amul menn pexe am na sañ-sañu dog waaye nag su demee bay fay moom day boole fay ak joxe mut Eh, salaa salaam waxoon na ne inna la taala wadaa anil musaafiri chatra salaati wa anil musaafiri wal xaamili wal murdai assawm yàlla wàññil na kii tukki genn wàllug julleem waaye teggil na kii tukki ak kii toll diggante ak kii nàmpal koor ahmad ak Tirmisi ko ci na solo na xadis boobu mbokk juróom mooy mooy kibaru sinni ak mage ni ko su demee bàgg ci mage foo xam ne yaramam àttina na tut koor su waree dana ko jural jafe-jafe am na sañ-sañu dog wattee kooram nga leneen mooy di joxe mudd saa bis bu sukkar bu nekk na natt lu mat kilo ci ceeb walla ci dugub eh, jox ko ab miskin loolu mooy wuutu kooram su fekkee amut lu mu joxe nag da koy wàcc Ibnu Abbas waxoon na yàlla na ko yàlla gërëm yoo xam wéram ne yàlla na ko suñu bon dool li ngërëm ne ruqisa li sayxil kabiri an yaftura wa yatam an kulli yawmin miskinan wala xadaa alayhi nit ba àggee ci mage muy góor muy jigéen su boobaa am na sañ-sañu dog tey joxe miskin bu nekk ab mbudd bis bu nekk te du ko war su dee fàttee am na ñaari farata moom koor ñaari farata rekk la ba njëkk mooy yéene ñaari mooy jàpp ci lépp luy waral dopp bis bu ma sëkk li ko daal ci fajar ba ci soog jant daal su ma ne bu ko la wasra bo na ngeen lekk te naan ba keroog xataa itam bay lekkul xaytu ab yadu min xaytu aswad min al-fajri soo demee ba leerug eh, maanaam gi tàmbalee feeñ ci lëndëmu guddi gi loolu jublu ci alxayt weñ wuñ gu weexe wuñ gu lëndëm wuñ gu ñuul mooy weexaayu suba geeg lëndëmaayu guddi gi lañ ci la ci misaal soo demee ba leeraayu fajar tàmbalee feeñ ci ñuulaayu guddi gi nga bàyyi nag lekk ak naan sàttuñu nag ci koor yéene ju jonjoo ak jëf ji te xam nañ ne yeneen jëfi jàmm yàlla yi yéene ji ak jëf ji day jonjoo su dee julli yaa ngi yéene fi ngay ka bari kabar xarmal su dee njàpp yaa ngi yéene fa ngay sëlmoo su dee leneen lu mu doon de jëf yéene ji ak jëf ji day jonjoo waaye bu dee ci koor nag moom yéen ji mën naa bañ jonjoo ak jëf ji suñ séentu weer ba ne weer waa nga nee rek mën ngaa fase foofu sa xam nga koor gi fajar lay tàmbale waaye mën ngaa fase foofu sa yéene yéene jooju mën nga yéene ndoo weer wi yëpp te yéene ji da lay doy ba kere weer wi dee lu jar yasal lu may dangaa dog ci diggante bi ngir ngant sooy tàmbala yasal waaye fekk li fekk dogogo yéen yi nga yéenuñ ci guddi gu njëkk mën naa man naa euh, man mën naa wéy kon daal waxtoom mooy guddi gi lépp waaye na jiitu fajar yéene ji kon gépp koor goo xam ne toftale ko dafa war rek jenn yéene man na caa doy ni ko noonu bu fekkee dafa xëdd it ba tey xëdd wuutu na yéene ndax képp kuy xëdd rek dafa kooku dafa sawar kon moo tax kon xëdd dana wuutu yéene ndax yéene ci jëfi xol yi la bokk jëfi xol la te kiy xëdd fas na ne kon daa daa nar a wor bu dee maliki yi nag dañ cee chartre yéene ji kon jiitu fajar rek ci bépp gépp koor goo ne dafa mën a eh, moo xam koor farata moo xam kooru nafila la ñu tegtaloo ci li ahmad solo ak ibnu xabbaan jëli ci soxna xafsa mu ne yónni sa saasam waxoon na ne ku fanaanoowul eh, yéeneem lu jiitu fajar falaa siyaama la amul koor ku fanaanu maanaam koo xam ne yéeneem jiitul fajar rek amul koor Maalik ji ba tey dañu wax ne dafay war mu yeesal yéeneem saa bu dogee ngir ngànt soo wéree dee ba dog ci wala ngay tukki dog ci wala jigéen jis baax dog ci suy tàmbaliwaat day war mu yeesal yéeneem waaye li fee nag dogg gu amul nag yéene ju njëkk ji mooy wéy ba keroog koor gi di jax farata ñaareel bi mooy jàpp ci lépp luy waral dog tegtal mooy wakkuloo wësra boo jo ay jooju ma jàngoon léegi lekk leen tanaan ba kero eh, fajar di jot fajar di fenk ay sunnaam ñett rekk la ba ci njëkk mooy xëdd xëdd bi sunna la Buxaari yu ak Muslim ko ci solo na jëli ci Anas bin Malik radiyallahu anhu mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne tasaxaru fa inna fi suxuuri baraka dee leen xëdd ndax xëdd barke ngi ci sopp nañ nag yeexe ko ba ci mujj guddi gi saxaaba yonte saa su ko dañu yeexe ba nga xam ne suñ xëddee diggante fi ñu xëddee ak julli jàng ñeent fukki rek moo fay xaj man nga ne juróom fukki man nga ne mën nga ko natt la juróomi minute ba ko ñaareel ci sunna yi mooy ta'jilul fitr mooy nga gaaw a dog ndax li yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne laa yasaalu naasu bi xayrin maa ajjalul fitr nit ñi du duñ daj na ci aw ni yiw li fekk ñi ngi gaaw dog ci bu jotee rawahul buxaari yi wa muslim benn riwaay boo xam ne buxaari yi muslim solowuñ ko man laa tasaalu ummati bi xayrin maa ajjalul fitra wa xeet duñ dañ di nekk ci aw yu li fekk ñi ngi gaaw a dog te yéex a xëdd jëleen ci abi Hurayra radiyallahu anhu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sun borom nee na inna ahabba ibadi ajalahum fitra ki ma gënal ci sama jaam ñi ma gënal ci sama jaam yi mooy ñi cey gën a gaaw a dog ahmad ak Tirmisi ko ci ne solo na xadis boobu ba ko ñetteel ci sunna yi mooy taqlilul kalaam kalaam lu mu baax nga néewal wax ju dagan wax ju xaraam moom daa xaraam ci koor lu dul koor waaye wax ju dagan lañ ne nga néewal ko wax ju dagan nga néewal ko ju bari ju amul njariñ day sànq day sànq waxtu da fexe booy wax la nga nar ju bari nga jàng ko wala nga jàng ko xasida tudd ko yàlla wala def ko salatul mu nekk yiw woo xam ne sunu rek mooy xam na muy toll bokk ci sunnee koor kon fekk saw làmmiñ ci xeeti neen wax ju ñaaw saaga xaste jëw rambaaj ak yu ni mel nga moytu ko bu baax a baax am na it yu yàq koor bokk na yi ko yàq lekk ak naan moo xam yaa ko tey moo xam teyoo ko soo juuboo lekk wala nga juubu naan koor ga yàq na waaye teewut dangay ngay wéyal koor ga àggale te fay nag bis war la ci su fekkee teyoo ko su dee tey nag moom kafaara war ca bokk na ci itam sëy dafa yàq koor bokk na ci génne maniyu génne maniyu ak génnug maniyu du benn du benn nag ixraajul maniyi ak xuróojul maniyi du benn su ne xuróojul maniyi day tegtal ni loo tayut la ci misaal da doon nelaw gént ba mu génn caw loolu sa koor dara si ko ca da ngay sangu rek àggale sa koor dara waru la ixraaj nag yaa ko sabab lu moom yaa sabab lu ba sa maniyu génn subaa da ngay boole fay ak kafaar bokk na ci dem lépp lu àgg ci ci biir ak fu mën a jaar ba àgg ci biir bi euh, dafa yàqu koor lépp lu àgg ci boli gi tey lu yolom lu yolom lu mel ni ndox walla meew wala lépp lu yolom su xasee àgg ci boli gi yàq na koor parce que fekkee day lu dëgër nag soo mënee fexe ba génn ko euh, dara waru la bokk na ca tux cigarette ci ki koy def tux dafa yàq koor ak loo mën a tux nag dafa yàq waaye bu dee saxar su matt nag yàqul koor moom waaye saxar su cooraay ak cóolaleel cin su la duggee da yàqu koor bokk na ci itam rotal sa yéene dem ba digg bëccëg nga yéene ne wóoratoo donte lekkoon naanoo sa koor dog na bokk na ci it eh, looju ngir wàccu soo loojo ba wàccu koor ga yàqu na bokkut ak wàccu mu la not su fekkee wàccu mi moo la not moom soo ci wanaatu dara yàquwul waaye su fekkee yaa sabul wàccu mi moom sa koor yàqu na kon képp ku jëf lenn ci yooyu ma tudd te def nga di ci ak tey fa ak kafaara ca war su dul ak tey nag àggal bis ba ak fay moo ca war am na ay mustahabaat mu yi ñu sopp ci koor bokk na ci yéen ca sopp eh, booy dog nga doge tàndarma dañ ko sopp ndax li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne ida aftara ahadukum fal yuftir ala tamrin fa innahu baraka fa ida lam yajid tamran fal fa innahu tahur nee na képp ci yéen kuy dog na doge tàndarma ndax bàkkee ngi ci soomul tàndarma na doge ndox ndax ndox lu ndox lu laab la Abu Dawud ak Tirmisi ku ci na ku ci ne nettali na xadis boobu bokk na ca li ñu sopp it ci koor suy dogee tàndarma na ko def lu tóol lu tóol benn wala ñett wala juróom wala juróom-ñaar ci misaal wax nañu ne inna allaah witrun yuhibbul witra yàlla dafa tóol ndax ndax yàlla kenn képp la te dafa bëggit lu tóol bokk na ci ñu soppit mooy ñaan ci waxtu dokk wala suñ ndaw mbokki ndaw ko ndaw duñ ko tal waaye ñaan lu am solo la ci waxtu dog ndax foofu dañ fay nangoo ñaan tagg yàlla soo wa taala ci kemtaal nam ko yeyoo sant xéewalam muy xéewalu teggil gi mu la teggil coona ba noppi nag dencal la ca yool bu rëy rey nga sant ci yàlla ibnu abbas nee na radiyallahu anhu kaana nabiyu salaa sallam eh, isa aftara xaal allahuma laka sumna wa ala risqika aftarna fa taqabbal minna innaka anta samiul alim nen daana wax ne yow sun dañoo woor ngir sa jëm rek ci sa wërsëg la nu doge koy yàlla nag nu nangul nda yàq ndax ndax yaay kiy dégg te yaay ki xam tabaraani yi nettali na xadis boobu maam dox ñaan Sëñ Tuubaa ci boppam nag defan ci ñaan gu am solo kon bu nekk war na koo fexe mokkal te ko jàng ci waxtu doog ndax jéggalu am solo da ca nekk xam nan li man aana ni fa sumtu wa saaqali rizqan bihi aftartu falaka waxdaka ilahi sumtu summa bi xudratika xad aftartu falixfiran jamia ma qaddamtu ya xaafira dambi wa ma axartu wa kullama asrartu aw aclantu wa kullama alimtu aw jahiltu anta ilahi la ilaha illa anta xini atabakal mu yowmal qiyamati bi jaahil mustafa wa sallina alayhi suma sharifa lu gàtt la fexe moo ko saaboo dogee nga nga wax ko abdulahi abdulahi ibnu omar nee na yonente bi salaa su ma sànn dog nday wax ne dahaba zama'u wabtalatil aruq wa sabatal ajru insha allahu taala marwa dem na ñaq wa fendi na te yool baa ngi fi des ba faw incha allah tabraani yi ak xaakim ko ci na nettali na xadis boobu bokk na yi ñu sopp ci weeru koor it baril sag jaamu yàlla walla say jaamu yàlla ni ki saraxe rafetal jëme ci say bokk say jege ñaale rafetal jëme ci jirim yi ci miskin yi jokk bokk defar ab diggante defar mbokk ak jépp jëfi yiw bokk na ci taraaweex yi ñuy def ci guddi yi naafile yu guddi yi lu am solo la di ko defee ci jàkk yi su fekkee jàkk yaa ngi fees nga di ko ñu ci kër ya sa kem kàttan ndax topp yàlla googu ci weeru koor dafa masiya muy muy daraja ak may yu kawe yoo xam ne da ko ëpple mboolem yeneen weer yi ci des yépp te yonente bi sallallahu alayhi wasallam neewoon na man xaama ramadaana imaanan waxtisaaba xufira lahu ma taqaddama min bi képp ku taxaw di naafile ci weeru koor ngir gëm ak fàggu tiyaaba jéggaleef ko la jiitu woon lépp cay ay bàkkaaram bokk na ci li i'tikaaf di sunna su am solo ci fil asril awaaxir fukki fan yi mujj ci koor nga def ko ñu baax ñi dañ ko daan def dañ ko fonkoon lool moo tax ni yonente bi sallallahu yooyu tax na da daa farlu ci xeeti jàmm yàlla yu wuute yu fasante ko rawati nag ci fukk yi mujj ci koor euh, kon yu yëpp yu am solo yoo xam ne euh, lu mat a fonk la ci weeru koor am na it yu ñu sib